dal leen nag jàmm internet ci actu mi journée Nous avons tàmbalee des affrontements yaraax ak yile affrontement si diggante nappkat Ndar yi ak ñii di nappkatu yaraax yi ñuy utilisation maanaam mbaalu caas ndaxte rek day yàq géej gi ak ndox bi ñoom nag ñooñee di nappkatu waa yi daal di taal gaalu ñii di waa Ndar ak seeni mbaal mu nekk coow lu rëy ba waa gendarmerie bu Yaraax ak mer bi di Babacar Meng génn ci ngir waxtaan ak solution ci mbir mi mu nekk lu mënoon ñàkk ndaxte ñoom ñëpp ay doomu lébu lañu lii di waa Guet Ndar Yoff Tëngéej ak Yaraax jox nañ ko jox nañ ko commandant gendarmerie moom moo mobilisé xale yi moom Diop May moom moo mobilisé xale yi moom tooñ gi yëpp moo ko mobilisé te gars ñuy joto ñu ak moom dara gars liggéey la ñu xam jaamu yàlla leneen xam yow ñun même bu fekkee defuñu yoon yow dañ loo yóbbu si yoon mais yoon mayul yoon mayul kenn mu fajal boppam mais dëkk bi am na yoon yow bu ma juumee wala ma jalgati xanaa yow yaa maa réglé dëkk bi am na yoon yóbbu ma yoon mais jël sama alal di ko yàq loolu amul fenn teguñu ko fenn loolu amul fenn ah fan la dégg nañ suñu réew mel ni yéen ñun ñun dinañ nu sal

Ahí está con las barras waaye yàlla dañuy dem Joal dañuy dem Mbour dañuy dem Yoff dañuy dem ba Saint-Louis dañuy dem ba Niwadi est-ce que mos nañu xaar doo noppi ba seen programme jeex mais ñun yan seet doomu ndar warul liggéey si géej gi Sénégal loolu man man raison la wala su fekkee ni yow yow mi nga xam yaay meeru Sénégal Yaraax te waa Yaraax fan la bu fekkee ne jour si itam bëggul si Yaraax ñun nga wax lu ko ñuy gàll jël suñu ay gaal. jël na fa li nga xam dem fa. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah. yow da nga ñëw wax ci la naqari du dëgg

Okay, guys.